aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmaanirahim mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, tey ñooy ak yéen ci gént pikiir pikiir nga gént pikiir ci góor bu am soxna ak bu amul soxna su fekkee dala fekk ci feebar day firi wér ci feebar su fekkee feebaroo day firi xéewal ak wërsëg balaa ma ci ñëw li ngay jàkk njëkk jàpp pikiir ak quatre-vingt-quinze pour cent ci gént baax na génti gis pikiir rek da nga génti gis ko nii rek piqûre woo ci su fekkee dañ laa mooy bi ma njëkk wax bu fekkee da ngaa feebar day firi wér ci feebar maanaam piqûre ci góor feebar day firi wér feebaroo day firi xéewal bu fekkee danga ko gis nii rek piqûre woo ci defoo ci dara ci góor gu amagul soxna day firi soxna si yow bu dee nit koo xam ne am nga soxna waaye dangaa ñàkk lool day firi sutura yàlla yàlla mën na daal dimbale jële la ci ñàkk yóbbu la ci sutura wax ma nag nga ci jigéen jigéen gu nekk ci néegu sëy jigéen ju ëmb jigéen ju mësa a sëy jigéen ju sa boroom kër faatu jigéen ju amul jëkkër pikiir léeg-léeg dina firi wërsëg dina firi stabilité dina firi njàqare xat-xat yu dañ dina firi wér ci feebar waaye ci jigéen ju amul jëkkër gént gis pikiir walla pikiiru day firi ay stress ak njàqare ñépp baax na ba mu des moom ci jigéen ñépp jigéen ji ëmb dana firi doom bu jigéen ci yow ay piqûre yu bari dañ lay piqûre di la piqûre piqûre yi tegaloo bari nekkul benn piqûre baaxul day firi problème ak i xat-xat yu tegaloo da nga gént ñu pikiir la ci sa loxo fii ñuy tàmm daan piqûre dana firi taxyirul xaal maanaam changement soppeeku ci wàllu dundin ak avancement ci yow yi may mujjee wax ñépp ñoo ko bokk gént ñu piqûre la fekk nga feebar fekk nga feebar léeg dana fii dana firi am am dana firi xéewal léeg-léeg mu firi wér ci feebar danga gént gis benn médecin dem hôpital ci médecin bi nga gént mu fi pikira day firi am am alal joo xam danga am ci amin bu dagal te dana la jëriñ lool dañ laa pikir mu mitti nga yëg ni mitti na ba nga yuux day fii di xabaar bu neex waaye su fekkee mitt du daa jéggi dayo nag ba nga yëg ne sa yaram maanaam métti du dafa jéggi day ba lor am ci baaxul day firi xabaar bu naqar yi bu dee pikiir métti du yem nii moo gën métti bu jéggi yaram na gént sa yaram bi yëpp ñu jàm ko ay pikiir sa yaram bi yëpp def ay pikiir baaxul baaxul day firi ay tolof-tolof ak i xat-xat donte nag ñenn ñi dañoo wax ne dana firi xéewal guy ñëw waaye ginnaaw coono yu métti maanaam ay jaar-jaar yu tar ginnaaw coono topp si loolu tamit am nañu ko piqûre ci sa tànk waxuma ci sa cuisse sa oom fi ñuy pooj fi ñuy piqûraate nii fi ñu ko tàmm mais sa tànk nga gént ñu piqûre la ci euh, ci jigéen ji ëmb baaxul bu dee célibataire day firi soxna si yow bu dee ñeneen ñi ku nekk ci néegu sëy wala yu mel noonu dana firi stabilité bu dee ko ñàkk lool dana firi koom maanaam ñu piqûre la ci tànk kon baax na mu des nag euh, dangaa gis benn euh, seringue maanaam dangaa gis seringue boo xam ne amul puso puso bi ñuy pikiiree nekku ci kooku sarax la koo xam ne da nga koo gis jàppande war nga génnee sarax nga def li sa xaar xool sa sarax lan nga génne ko da nga gént sa boroom kër jox la pikiir wala sa soxna may la jox la pikiir wala moo pikiir la day firi xéewal ku nekk ci yoon di ñëw gént pikiir la ci pooj maanaam fiñ tàmm pikiiraate nii fi ñu pikiir ci gént Euh, bu dee marié bi day firi mucc ci njàqare xat-xat bu dee célibataire day firi soxna su moom da gént pikiir nga lekk ko am na ko naan pikiir nuñ koy lekkee waaye wax ma réalité gént laa gént amul règle amul benn xaayda bu naan lii nga war a gént lii waroo ko gént comme di ko waxee kooku baaxul day firi nit kuy der teg ci sa der lu ñaaw loo xam ne mën na laa lor pikiir nga gént ku faatu mu pikiir la wala mu jox la pikiir baax na day firi mucc ci njàqare ki xat-xat wala boog mbir mooy toppatoo mbir ma dana jàppandi ci lu yomb lool kon ala kulli xaal ñu pikirin ko ak quatre-vingt-dix-huit pour cent wala ba quatre-vingt-quinze pour cent day faral di baax ci génn ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.